nga am ci wàllu néew kàttan sa ndoxu awra baaxul wala sax sa awra nooy kaay ma jox la solution bi ci gën a gaaw produit 100 pour bio baa ngi nii muy produit boo xam ne dafa naturel amul benn effet secondaire dañu la koy jox nga boole ko lem ak limon di ko naan matin ak soir mu daal di saafara say jafe-jafe neexal sa biir néegu sëy am nañu pommade boo xam ne boo ko diwee ci sa awra mu daal di kuy dëgëral di jël ko waaye nag du ko guddal ma ne la bile pommade moom itam dafa naturel lépp loo ci jël du la Le bon effet secondaire djokol ak ñun yow mi ko ci 77 751 59 59 wala 76 313 93 94 ñun suñuy produit dañu la koy jox nga am ci satisfaction totale boko amul ñu daal di lay dello sa xaliss ñun rek ñoko ko uba pour la première fois débiterie professionnalisée professionnel ndawal mosoo nous de am suñu marinade bop, am suñu bop, am suñu secret bop. Nanga nga ni la McDonald amé ay secret non le dibiteri Uba amé ay secret dibi Uba safiap Uba ouba, Uba poulet Uba pigeon Uba pentad Uba Bol Uba kaay ma wax la fa 77 629 0000, fa saaf yàpp nexé 77 633 57 57 fa méchoui neexee mooy dibitëri Uba fa Poule neexee dibiteri ou Uba té nak kaay ma wax la dibitëri Uba Commandel ñu livrer la fangane, Boule ne la tamit nga tok sa kër commande Tabaski defal say commande Bo amé xew defal commande boy dalal ay nit defal commande nga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 gars yi dañuy wax du loolu sëñ mun taxaa dafa wax ni que Macky Sall na bàyyi kii di Ousmane Sonko te sëñ mun taxaa balaa ñu di génn wax na ko ci ay kàddu ne bëgguma coupe de promesse samay propos euh, coobare Ousmane Sonko mi ngi ci sama xalaat waaye mënuma wàññi waxu Macky Sall pour que mu bàyyi nit koo xamante ni dossier am c'est pendant devant la justice tey ñu gis manipulation de formation boobu à travers la justice tey ban jàngat nga am ci xaw wax jooju waaw euh, man de wax deug neex yalla suma ma sañoon Tange du ma wax waxe Pape Ali. Lutax? journaliste la parce que al umul khaba'is moy ndey ñawte fi. Pape Ali yaakaar nit la bo xamanteni bu doon atel islam la Arabie Saoudi wala fenen kon Pape Ali dootul wax Lutax? parce que dañ koy rendi lu mu def dañ koy rendi Pape Ali yentibi sallallahu alayhi wasallam dañ ñuko ko est-ce que dina njaaloo mu ne waaw est-ce jullit dina naan sàngara mu ne waaw est-ce jullit dina fen mu ne al muslim laayu kasib jullit du fen <laughs> toog na ñëpp di ko dégg mu ne li nga xamante ni mooy général Moussa Fall. Mhm. am na fi immeuble. bi ñu ko mhm. gëstoo benn acheté moo ko moom. mooy bi nekk fii ci côté euh, Cité Batra. Cité Batra euh, yaakaar naa Pape Alda wax dëgg neex yàlla. man Cheikh Mbacke Gadiaga daje naa moom Landoura daje naa moom fu nekk ci àdduna Pape Alé du nit koo xamante ni dafa am crédit wu mais man nag dafa am lu ma jaaxal. Hmm. parce que am na ku ñu jàppoon ci affaire force spéciale dafa amee problème mu rein di def dialyse te mu hmm. dawoon ñu jàppee ko Daaru Karim. Hmm. yaa ngi fàttaliku loolu. si si ma rappel Pape Mamadou Seck xaw ma. waaw Pape Mamadou Seck tey ñu wax ak Daaru Karim. loolu bu amee Pape deful dialyse. un Alé deful dara a grève de la faim mi ngi am dañuy ñi fi nek ñu grève de la faim dañuy debbu presse bi am ño xamanteni kon journaliste journaliste la non defal dafa journaliste non defal ah. defal hmm. auditionné au nouveau du juge Mamadou Seck hmm. dañ ko carte presse waaw ku yoru carte presse daan ba di doo journaliste journaliste bi eu carte presse kon ñun ñëpp dañu ay journaliste moom um Iba Kane yoru carte presse non dégg déglu ma xaar ma ñëw rek te kenn ne du journaliste que rek xaar ma ñëw rek bu fekkente ni yàlla dal dimbali ngeen ne avocat nga par exemple maître Ciré Clédor Ly taxaw na ñu ne avocat la avocat la ci média yeeg yooyu mais bu demee ba a ci police wala commissaire ñëpp dañuy xam ne maître Ciré Clédor Ly mais dañaan ko maître s'il vous plaît mën nañu am sa carte waaw da koy génne ñu mentionné ko. waaw moo lay identifié. au niveau international. Mm. tey bu demee ambassade. Pape mm. Alé ambassade France musu ko jox visa. waaw bu demee. ambassade mais fan yii dégg naa am na rendez-vous. non dafa bu demee ambassade. Mm. mais carte de la presse da ciy bokk. ba mu jëlee Dakar matin ba soo ko jëlee Dakar matin. jaay ko jox ko Pape Alé. Pape Alé ci la nekk activiste. Pape Alé ci la nekk politicien gis nga fi Guy Marius Sagna. Uh-huh. France dégage mu ne ñun soxla wuñu poste. Uh-huh. soxla wuñu politique soxla wuñu tey mi ngi nekk député. di encaissé mu ne hmm. France dégg du laal CFA. du laal oto du laal nangam mais payooram bimi muy laal la xanaa ubbiyee la. <laughs> gis nga taas euh, taas nañu waxante dëgg te yàlla tax. Gemign bu waxul deug wax fen. Hmm. Pap Ale liñ ko may dafa ëpp. Pape Alé li mu war def moy ñu jël ko yob ko Kédougou parce que Pap Ale nit la bo xamante ni day tas rew. Pap Ale nit la ko xamante ni du nit ku lucide. Ko xamante do nit ku lucide nak. waaw ah, lu tax nga ne non. man lan la def ci corniche bi dawalal ba mbëkk oto jàmbur. waaw mais comme ñëpp jël ko yóbbu ko comme ñëpp dafa dafa non dafa juum foofu rek la war a xam ni. dafa juum foofu rek la loolu déli la. waaw mais nu ku nekk day mbëkk oto sax la war a xam ni. justice bi dañu indépendant ndax bi ñu ko téyee ñu yëgal procureur di téye nañ ko. Mhm. dañ li ko dal mën naa dal ko ne pourtant Papis Diaw TFM. Mhm. bi mu ko fi defee dañ li tax yóbbuwuñ ko ci kaso bi. dëgg la. Pape Alé bi mu ko defee. ñu ne li tax ñu. ñu bàyyi ko bàyyi <laughs> kenn waxul dara kenn waxul dara. Papis Diop def ko ñu ne TFM la bokk moo tax ñu bàyyi ko. bërki démb Juan Branco. ñu ne procédure am dafa gaal Ibou Touré lancé wuñ ko mandat d'arrêt. dëgg la mu wàcc aéroport ñu yóbbu ko Rebeuss. bi mu xëyee dem ci juge ñu bàyyi ko. dëgg la li tax ñoom waxuñu ci boobu. wax dëgg yàlla. Juan Branco li tax ñu bàyyi ko mooy juge bi nekk deuxième cabinet. dafa am ak contact. doyen des juges bi nekk Paris. ok ñu ne ko bis bu ñu ko soxlaa dinañ leen ko livrer. d' accord mais nit ñi am protocole. protocole judiciaire day am diggante état ak mais du ñu xam. nit ñi xool ba kii non parfois day am ñu xam sax mais dañu nekk ci plateau. pour bëri nit ñi maa ngi dégg Pape Moussa. Mhm. Pape Moussa Pape Sow. juriste mu ne. moom daa mel ni dañ ko porter plainte. mu ne mu ne Cheikh Bara Ndiaye. delloo nañ ko ay téléphone mhm. mais Tange loolu dëgg. Tange Cheikh Bara Ndiaye dañoo jàpp ay booy Nous avons ci Orange Money hmm. ak Wave ñu le numéro Cheikh Barre. Nous Cheikh Nous ko convocation hmm. dañ Nous avons une téléphone effectivement nous avons ni dafa link ak Nous hmm. ñu jël téléphone yi une Ben acte une ni Nous justifier que ni famille Cheikh barre. ñi ak téléphone nous manipulation la ba aussi Charles Faye gis nga ñii man dama yaakaar ne dañuy door a jaww xaw ma dañuy dox yàlla Charles Faye ni Karim Wade c' est français son père c' est mais <laughs> fii bu ñu doon xool français kon kenn du nekk ci gouvernement bi. ak a bëri français ñoom seen jabar yi suñu ëmbee dañu koy France pour seen doom am nationalité français moom lan la <laughs> amul nationalité américaine. ñu ngi toog ci télé yi di wax. ah jàllale sant Faye. Abi Ndour amul waaw te ngi nii rakk Youssou Ndour. waaw. dañ naan ak de dóor sénégalais man sama doom sëñ Saliou amul nationalité suédois boobu noonu mi ngi toog ci télé yi di wax américain da nga ko mën cee da nga ko cee mën a génne déedéet nañ bàyyi li ñuy def nga Sénégal bu ñu bëggee mu nekk ci jàmm nañuy waxante dëgg parce que fii koo fi xamal bibliothèque xamal na la koo fi xamal livre xamal na la bibliothèque du ñu bàyyi kenn kuy déstabiliser nguuru président de la république ndax yàlla moo wax ci alxuraan ni nguur maa ko yor maa koy jox ku ma neex ku yàlla yenn kenn mënu laa yenn nañu arrêté parce que ñom seen jëmmi bopp lam leen jaral ba ñuy sos de katch di fenn ñun danañ taxaw dénoncer leen wan ni ñoom duñ ay waxkatu deug d'accord Touba pour la première fois dibiteri professionnalisé professionnel ndawal Musoko ko de am suñu marinade bop am suñu cafka bop am suñu secret bop na nga xamé ni non la McDonald ice ay secret non la dibiteri Uba mis ay cream dibi Uba saf yap Uba méchoui Uba poulet ou pigeon ou bas, pentade bol bas, bol ou bas. wax dibi 77 629 00 00 fa Moi yàpp neexee 77 633 57 57 Fou michui neexee moy dibiteri ou bas Fou poulet neexee Moi dibiteri ou bas te nag kaay ou bas livrer la fangané. ne bu la tamit nga tok sa kër defal commande Tabaski defal say commande bo amé xew defal say commande boy dalal ay nit defal say commande nga xamni débiteur débiteurs ba dalay defal lay bu tok do defal dara débiteur yi ba livrer la cay Uba mo jaaxal rew mi. tap tap sen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 yow mi am jafé jafé ci walu new katan sa ndoxu awra baaxul wala sax sa awra noy kay ma jox la solution bi ci gëna gaaw produit 100 bio bagni ngi muy produit bo xamné dafa naturel amul benn effet secondaire dañu la koy jox nga bolé ko lem ak limon diko nan matin ak soir mu daal di say jafe jafé neexal sa bir negu sëy am nañu pommade bo xamné ne diwé ci sa awra mu daal di kuy dëgëral di jël ko wayé nak duko guddal la bile pommade Momitam dafa naturel lepp lu ci d'où le le jurel ben effet secondaire je ak ñun yow mi ko ci 77 751 59 59 ou wala 76 313 93 94 ñun suñuy produit dañu la koy jox nga am satisfaction totale boko amul ñu daal di lay dello sa xaliss ñun rek